réew mi sommier bi ko tëyu ba nit mën a toog ci kaw sommier bi rasoor yépp damm na kon nag ku foog ni mën nga toj réew mi te doo ko yëpp waaw benn werante nekku ci réew da xam lu mu attan ak lu mu attanu